mbokk yi ñu ngi yëkkati ay kàddu ci ndigalal Chérif Sid Ahmed Tijani yi kàddu yi bi ci njëkk moo di kàddu yi cant ak ngërëm ak ñaan jëme ko ci suñu sëriñ bu tedd bi toog di sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour kaddu yi ñu ngi koy yëkkatee ci ndigalal sëriñ Sid Ahmed si ndax rakkam cheikh Mouhamadul Habib si dabbaax moo ko daan yëkkati yàlla dogal ren mu nekk ci tukki niyabatan anhu sëriñ bi nee na mi ngi sant xalifa bi bu baax a baax sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour xalif général de Tijane di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ndax lii. su ci bu ne woon nañ ko bàyyi dañ koy bàyyi kon lépp luñ fi def ci kilifteefam la ak ndigalam la ak tabriikam ak ñaanam sëriñ bi sa rakk nee na mi ngi lay sant mu ngi lay gërëm mi lay ngi lay ñaanal li la war ci bis bi yépp ci ay teraanga indi nga ko ci bis bi yal na la yàlla fay te yàlla guddal safan di nuyu sa rak sëriñ Pape Malick si nga xam ne moom nga dénk baat bi mu la ciy wuutu di nuyu sa rak Cheikh El Hadj Malick Aziz ak mboolem sa rakk yi topp ci sa ginnaaw di la jàppale ci liggéey bi ak say doom ak say jarbaat di njabootu maam Cheikh El Hadj góor ak jigéen mag ak ndaw waxtu yu moo dul may ñuy tudd seen tur ñoom ñëpp waaye kenn desul fa tabarakallah di nuyu itam sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbakke xalif général de Mourides ak délégation bu mag bi mu fi yónnee te Cheikh Abdou Samad Mbakke di doomu sëriñ bu Mbakke jiite ko muy délégation bu kawe lépp lu bokk ci Mbakke ak Mbusoobe di njabootu mam maharam sëriñ bi tànn na leen boole leen ak Cheikh Abdou Samad ngir ñu ñëw teewal ko ci bis bii nga xam ne bisu maamam la ndax mam maharam moo ñu bokk meññi ñun ñépp sëriñ baa ngi koy nuyu di ko sant moom itam indi na fi ay teraanga yu mat sëkk fa tabarakallahu ci bis bi sëriñ Bass Abdou Khadre ñëwoon na fi bu yàggul ci turam tey mu yebal Cheikh Abdou Samad mu ñëw ànd ak délégation bu kawe soxna Bali Mbakke ak soxna Kiné Mbakke Laxat ñoom itam ñëw nañu ñëwin wu rafet fa tabarakallahu fi la ñu yendu ba ci ngoon lañu ñu dellu kon sëriñ baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal bis bii daf ko ko jagleel ngir rekk rafetal mbokk gi ndax dañuy wax ne arab yi dañuy wax ne al lisaanu laysa azman walakinahu yukassiru al idam wal lisaanu laysa sayfan walakinahu yasfiku dima dañuy wax ne làmmiñ du yax waaye yax bu damu làmmiña la damu jam làmmiñ itam du jaasi waaye fu ay jaasi jóge ba corante ba deret tuuru làmmiñay ndey ja pour nag arrêter làmmiñ yu bon yi nga xam ne dañoo jóg fas yéene taal fitna ci diggante njabootu laa ilaha illa muy baat boo xam ne li sayiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam liggéey ci diine xilaala thalathin wa عشر سنوات يو خمني قضاها بمكة المكرمة دي ووتي فرفضت قريش أن تتلفظ وأن تنطق بكلمة لا إله إلا الله لطخ أي أراب لنيو خمنا نبات لا إله إلا الله لمؤمب من مضامين ومفاهيم ومحتويات xam nañ ne buñ ko waxee caddo gi nekkoon ci penc mi ak caay-caay géeg ndëngte gi ak not nit ñi def leen ay jaam di muucu seen deret xam nañ ne lépp dafay jeex te bëgguñu mu jeex mu nekk fa fukki at di woote kalimatu laa ilaha illa allah waa quraysh lank fitna bu nekk teg nañ ko ko tàmbulee ci ay mbokki boppam ay baayam ay bàjjenam ñépp bañ yàlla ne ko bu makka bañee danaa la préparer terrain boo xam ne boo fa demee daa fekk mbokk yu baax waajal naa la ba mu mat préparer naa xol ya ubbi naa ko sànni naa ca leeru laa ilaha illallah boo demee danañ la yaatal boo demee danañ la tatagal dafa am tajaawub ak ñoom ci liggéey bu sell bii ma la jox te moo di fexe ba saxal كلمة لا إله إلا الله في قلوب الناس جرجف فكلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نينا أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي أو من قبلي مودي كلمة لا إله إلا الله بات بيجد تبات بو خمنا من أكسام مبكي يوننتي يما في جيتو وان مودي بات لا إله إلا الله muhammadun rasulullah xam ngeen lu tax doomu aadama yàlla daf ko bind ci anam boo xam ne bind ko bind ci benn mbindaafoon yàlla dafa wax suñu maam aadama ne ko danaa bind xalifa wa id qaala rabbuka lilmalaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa xalifa fu mu amee xilaafa am na والخلافة أمانة والخلافة تكليف والخلافة مسؤولية فعرض الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لماذا؟ نخ amuñu أهلية amuñu قابلية pour تكليف وحملها الإنسان لماذا حبلها الإنسان لأنه هو المخلوق المكرم المفضل عند الله والمدلل عنده وهو المزود بميزة العقل الذي به يميز بين الشر والخير وبين الحق والباطل responsabilité bobu yàlla ne exposé nako asamani ñu ne àttanuñ ko souf bañ montagne yi bañ yàlla nee na doomu aadama yenu ko ak li muy tuuti tuuti li muy néew néew doole li muy gàtt gàtt fan moom kott la yàlla def ci moom loo xam ne moo mën a yenu responsabilité doxal suuf tabax suuf bañ a yàq bañ a bokk ci ñiy tal fitna bañ a bokk ci ñiy wax ay bañ a bokk ci ñi fi indi musiba bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy dog mbokk di rambaaj di fen di toxal xabaar yu dul dëgg responsabilité boobu yàlla jox doomu aadama ak li muy tuuti tuuti ne ko yow laa dénk suuf yow laa dénk li ci diggante asamaan ak suuf jéere ji yow laa ko dénk xanaa kon responsabilité bi rey na bu doomu aadama bu ko yàlla dénkee loolu bind doj yi bind lox bind suuf montagne yi biddiw yi asamaan yi almajaratu samawiyatu والمجموعه الشمسيه كلها يالا مو بيند كو بور تيرال كو دومو ادم دومو ادم بو نياكي فايده با وانيكو دي سوجوتال بنت ولا مو كاي جام ولا دوج ولا وير ولا خير دومو ادم رير نبقى يوي يالا داف كو بيند تاغاتال يو دومو ادم بور غا جارينيو كو سا الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه weñ mi ngi ci suuf yàlla ne amal itte nga extraire ko togg ko ba mu ba mu ñor nga tëgg ci loo bëgg tëgg jariñoo ko yow doomu aadama bant yi seetal lu la ci doy nga yett def ci gaal def ci lal booy tëdd defar ci armoire booy def sa say bagage loolu yëpp yow la ko doomu yow la ko yàlla terale kon doomu aadama warul jaamu keneen ku dul yàlla pour nga mën a jaamu yàlla nag ku leeru laa ilaha illa allah mën a xam kan mooy yàlla dëgg-dëgg il faut nga wax baatu laa ilaha illa allah ci xol boo xam ne yàlla daf koy ubbi mu nekk qalban saliman qalban muxbitan qalban muniban qalban taqiyan qalban wajilan qalban mutmainan qalb boo xam ne fu mu toll laay fu mu toll mi ngi tudd yàlla moo tax cheikh alxaaji abdul aziz cheybatul hamd يلا نكو يلا فيل من ذكر الإله للقلوب قوت إن لم تعش به فهي تموت نينا ني دي سخلا لوم لك تيب سخلا دوغوب سخلا مبق سخلا نخ pour sa من dund nga am tawazun عنصر دولا manki ne ko yaram di يلا دفل بند من عنصرين متضادين من عنصرين مختلفين أحدهما مادة والآخر روح فكلاهما يحتاج إلى غذاء يرمو دوم آدم لكي دندل ميموتي بسخ روح أكخل لكي دندل دنيم دندخ لكي دندل ميتو ديالة موتاخ بون ذكر الاله تدو يالا قوت الايمان بمت سك للقلوب ني الخليش mbokk yi xol yi nag li ko mën a defar ba mu jag génne ci ràgg-ràgg yi ci sanc te bokk ci moo di fexe ba kalimatu laa ilaha illa allah tas ci xol yépp góor ak jigéen di ko tudd te mu bañ a yam ci làmmiñu kese baatu laa ilaha illa mbokk yi soo ko xasee ba wax te muy dëgg da ngay wéetal yàlla xam ne àdduna bi kenn moomu ko kuddul yàlla amu ko mën a bind wala ngay wërsëgal wala ngay dundal nit wala nga mën a jariñ doomu aadama wala nga man koo lor الا الله سبحانه وتعالى قل وخل يوم محمد ولا ينتي بك في جيتون ان صلاتي جولي جي ماي جولي ونسكي لماي تور تي كيرغي دوبوكو تور بور كين كودول يالا ومحيا يا سما دوندوغي ومماتي اك سما دي لله اجي صح لا نيل يالا رب العالمين كي بروم بنديف لا شريك له مبوكي نان جيل سونو بوب جوخ يالا ginnaaw goo mën a wéeru guddul ginnaaw yàlla bis dana mës a ñëw kooko daanu loola daanu yàlla des fi di yàlla kon nañ teel a xaritoo ak yàlla nañ teel a juboo ak yàlla bis dana mës a ñëw daraja joo mën a am xam-xam boo mën a am wilaaya goo mën a am wërsëg woo mën a am sañ-sañ boo mën a am yàlla na jeex na ay jéego la yu ma nattoon pour nga war ko dund jéego yi jeex na intahatil xayatu defar ba mu jek niñ ko defewon sallallahu alayhi wa sallam bi mu deme ba tollu ci ay fanam yu mujj dafa nek ci nek sunu yaay aisha radiyallahu anha jek jek sayyidina jibril na jameet aks soppeem la won kharitam la won ndax ño bokk mission dugg ci biir nek bi tok di waxtan ak mom yaraw waa tàng ndax sayyidina muhammad febar mo gëna metti suñu febar neena nimay siburo siburu ñaari nit ci yéen moy sama ben sibburu ndax yërëm xeet wi sëñ muhammadul mustapha jàng na ko sànq waalamu anna fikum rasulallahi law yutiicukum fi kathirin min alamri la anittum walakin allah xababa ilaykum alimaana wa zayyanahu fi qulubikum sang bi na lépp lu nar a metti ba ci sukuraatu dee juróom-ñeent fukk yeeg juróom-ñeent yépp sidina muhammad yanu na ko bàyyi xeet wi yépp ñu bokk séddoo benn bi سيدنا جبريل دوك دي وقتان اك موم جيكي جيكي ام كو تخاو سي بونتو بي ني السلام عليكم سيدنا جبريل نكو فايال كي لي نويو ملك الموت العزرائيل مسول دم نك دي جيلي روحو كين ديكو نويو كودول ياو سانغ بي نكو نيو سيدنا عزرائيل اكسي توك توك بو جيك نكو يا رسول الله يلا ما يوني تي ياو نينا ام غا شوا بولا نيهي ما بايي فيغا دوندو لولا سو bu la neexee itam ma jël sa ruux nga noppalu ndax mission bi metti la yaakaar naa ne ko waaw defe naa ne <clears throat> loolu su ko malakul mawti waxoon Pape Abdou Aziz Mbaye daf naan ko bàyyi ma ma dund junni at naa ko bàyyil ba ca kanam mbokk yi dee dee dee neexul suñu maam aadam bi ko yàlla bindee daf ko may mu dund junni at wan ko nag sëtam yi nar a ñëw ila an yarith allahu al arda wa man alayha mu gis ci benn sëtam sopp ko lool mu yónni si yàlla daawut ndax baat bu neex bi waaye atam ay fanam nar a gàtt mu la mu ne kii kan la ñu ne ko kii sa sët la bu ñuy wax wut mu ne waaye fanam dafa nar a gàtt te man am naa junni at naa ko may juróom fukki at ci samay at mu may ko cinquante ans bi mu amee neuf cent cinquante ans malakul mawti jékki-jékki na jamet mu ne ko looy wut mu ne ko sa ruux laa jël mu ne ko dese na cinquante ans mu ne ko yaa ko maye woon mu ne maa maye woon nanguwaat naa ko سيدنا محمد بيكو عزرائيل ني كوم نيكو مام شيخ الحاج مالك واخي واختار مولاه اذم الله خيره عن الزخارف ذا زهد وذا شمم مونيكو سا بوروم نينا بولا نيهي ما باي لا في با تي كانم nga dundul la sop bu la nexe itam ma jël la nga nopplu ci mu ne ko ar rafiq al a'la mu ne ko doyna seuk 63 ans yi ma dund li ma wara def yep def nako tabax naa ci ay góor yoo xam ne ci ak ceddo laa leen fekkoon lu tuuti ñuy reyante seen xol yi feebar coxar nekk ci rëy iñaan euh, noot nit nit maanaam aljahiliyatul jëla ceddo dëgg-dëgg moom la waa Makka doon dund ceddo ga ba ca gën a yées moo di ñàkk gëm yàlla ak ñàkk wéetal yàlla ak di bokkaale ak yàlla bakkaar yépp moo ci gën a mag amul benn bakkaar boo xam ne tolloo na ak bokkaale ak yàlla wutal yàlla ndend moo tax luqmaan ba muy dañ ko doom ja wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaidu yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim mooy bàkkaar bi gënoon a màgg ci biir pénc mi sayduna muhammad xool leen ku mel ne sayduna omar lu jiitu muy dugg ci lislaam ni mu amee woon doole nim bañe woon sallallahu alayhi wa sallam ak nim doon taxawe di gàllankoor yoon wi ba keroog yàlla ubbee xolam def ci leeru laa ilaha illallah mu ne lépp lu ma defoon ci ak ceddo lu jiitu laa ilaha illallah di tàbbi ci sama xol bëgg naa ko fóot ba mu set wicc ginnaaw bi ma duggee ci lislaam sang bi tabax ay góor yoo xam ne dañoo mujj bëggante soppante nekk alquran buy dox tabax réew madina mu tabax fa li ñuy tudde état te ñi def droit constitutionnel xam nañu lan moy sens état lan moy élément yi nga xamne moy constituer état pour état mëna taxaw siyad ci la bokk ashaabu ci la bok al ard ci la bok as sulta ci la bok ñi def qanun dusturi def droit xam nañ ko pour état mëna taxaw il faut ñu am ñenti élément yo xamne moy constituer pour état mën taxaw سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبخل ci biir makka ci biir madina te booba xanuun dustuur yi amagul قانون جنائي امغول قانون مدني امغول مستر جنائي امغول مستر مدني امغول لب ولا بوك بو امي نينكو كو كونسيفوار تي بير القران الكريم مو تابخ كو تي دير بو غات موتاخ مون من من نا ديم سوما ديمي نيما في باي ورنا نيو مانا كونتيني ميسيون ميسيون بي نك موي دوخ با اندي فيلي مام شيخ الحاج مالك نيو ني صحابه يو تديه من نان ما غنا ياتو تانك من نان ما غنا جيغي يونتي بي صلى الله عليه وسلم waaye bëgg na ñoom laa def ñuy nawle bëgg naa lu ñu jomb man maw dama jomb ko fu ñu teg seen tànk bëgg naa fa teg sama tànk bëgg naa bu ëllëgee fu ñu siggee ma siggi fa ak képp ko ma yaakaar moo tax ma ngay wax ca abada buruq yaa gaadiyan yaalu sina dafa balligan salan wasal an jiirati bi salaami neena yow mi xëy tàggu say mbokk wut waru way bu deugar fas yéene ziyaara mag man malik managuma dem maa waj nak nag pareeguma waaye kaay ma yóbbante la dama bëgg bo démé doj ya nek ci Medina bo démé nga taxaw nuyul ma leen waxuma la rasulullah waxuma la sahaba ye ñoo ñu ëpp nañu la waye doj ya dëkk ak sallallahu alayhi wa sallam ci Medina am nañu jagle go xamné yenen dog yi ci aduna ci amuñu ko bo démé nga ne leen Malick Fawad ci Sénégal mi ngi leen di wax assalamu alayka ayyuhal jabal nee na soo ko waxee doj yi danañ la delloo nuyoo yaa xaadiyan yaa lusina dafa balliran salan waaw am na ñu koy def majaas di wax ne ña dëkkee sala waaye man xaqiqa laa koy def ndax moom Cheikh El Hadj Malick xaqiqa la waxee fii wasal an jiirati bi salaam yi nee na boo demee boo jotalee doj yi sama nuyoo bala ngay àgg ci rasulullahi boo demee am naa fa dëkkandoo yoo xam ne mësuma teganteeg ñoom bët dañoo weex tàll ma ñuul kukk distance bu yàgg sori dox na sama digganteeg ñom mais man malik Fawad de ñom la def nawle bo demé na nga ma leen nuyul fedd li sama colère ak ñom ne len luñu jombu jom jomb lu doomu soxna bëgg ci lu baax bëgg naa luy maye ngeureumal yàlla bëgg naa ko loolu la mam Cheikh al hadji malik wax waqra salaman tayyiban tufshihi min hibbin ila nasin hudita himami neena bo demé na nga ma leen nuyul te nuyoo ba nan ko wax ci kaw na nuyoo ba na yaru na ànd ak teggin te wa nga ko wax ba màkk yépp dégg ko mu bàyyi ko ci soppe boo xam ne xolam leeru sallallahu alayhi wa ak bëgg ko fees na ci dell ila naasin jëm ci nit ñoo xam ne himaam yi abdu may yenn ngeen jàng humaam yi du humaam yi himaam yi la waaw parce que naasin himaam yi waaw himaam mooy jamu humaam بدون بن نت همام غي وح بدون بولو همام إلى ناس همامي هديت بي جملة اعتراضية بين النعت والمنعوت maam ne warba ala majnuni layla inna lii daa andawiyan ma aballa saqaami dem ba ca biir mu ne bayyin lahum tabyina barrin saadiqin inni bikim xilful jawa wa garaami maam dem ba ca biir mu ne man Cheikh Al Hadj Malick bari na guddi goo xam ne wala ay guddi yu bare bari yoo xam ne fanaan naa ko man Hadj Malick di wut ku ma wéttal ndax cofeel bu feesee sa xol dootoo nelaw waaye bëgg buntu bu ma fëgg fekk Abdou mbay nelaw na ba fàtte ay borom haji daw gor nelaw na ba fàtte ay borom haji pap An fàtte na ba nelaw ay borom ke ba fàtte na ba nelaw ay borom mune ne comme que gisuma ko ma waxal nak ma jël suñel yi def len yu sama wettel may ngombolan ak ñom comme que ñom duñ nelaw gucci yarub ba lay mam maam Cheikh El Hadj école école bu kawe du wax ne am naa xam-xam waaye su bindee nga jàng am loo tàqamteku da nga xam ne maam Cheikh Al Hadj Malick am na xam-xam ya rubba laylin baatu layl daf ko def tankiir ñaari masque yi ci suuf nakira la te nakira ci bayaan dafay ñëw di wane lu bare bare bare yenn saa mu ñëw di wane lu mag yenn saa mu ñëw di wane lu néew fii dafay ñëw di wane lu bari maam nee na bari na ay gudd yoo xam ne man cheikh alxaaj malik fanaan naa ko di ngombulaan ak suñeeli mutajaawiban mutasaajilaati xamaami dem naa ba gisuma ku ma waxal pitax yi may dégg ñuy sab ci guddi gi naan kurkutuk kurkutuk man xaaj malik ñoom laa mujj dafa yottal di wax ak ñoom yaa rubba laylin bittu saamira an qadin mutajaawiban mutasaajilaati xamaami أرعى الكواكب في الصريم كأنها شدت بأهداب صمام صمامي نانا أرعى ما يسمو من مالك الكواكب بديوي بديو بفق ما خم فن لجم خم بن لي فك ما ديكو سمو في الصريم باتو الصريم دفع بوك من الأضداد بات بو xam ne day firi dara ak safaanam assarim dafay guddi al leylul lëndëm kurus di firi suba fa asbaxat ka sarimi ci alquran ci suratu noonu ka annaha mu mel ni moom biddiw yi suddat takkeef na ko ba mu dëgër bi ahda bi ci samay mbaru bët yaakaar naa ne biddiw bu ñu bu ñu ko takkee ci mbaru bët ndax borom dana nelaw xam ngeen lu ko tere nelaw mooy sopp sallallahu alayhi wa sallam cofeel googu moo fi indi lii mbokk yi moo fi indi daje bi moo rëgët jaamu yàlla yi ñu bàyyi ko fu ne ñii bàyyi ko Gàmbi ñi bayiko Mauritanie ñi bayiko Espagne ñi bayiko Italie ñi bayiko France ñi Allemagne ñi Belgique ñi Hollande ñi Norvège ñi Suède ñi Amérique ku ci nek saqaka sa'iqul mahabba mo la reugut amato sañ-sañu tok il faut nga juk waxoon naa ko ci burdu ba ne leen tiofel ab du du jàmmi borom mam Cheikh Al Hadj malik nak fa fay lam ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu fi indi ñun ñëpp fa tabarakallah kon mbokk yi ñi ngi guddal waye ñi ngi ñaan mbokk yi nañu defar suñu xol yi nañu defar suñu xol yi gis nga Sénégal li ñu tardel moy xol yi mo doxul febaru xol yi mom lañu wara defarat sabu bi nga xamne mo koy fóot ba mu xol nak ba mu set wicc modi il faut ñu nafarat baatu laa ilaha illallah سرين بابك رضي الله عنه دانا وحنا لا إله إلا الله ستيم لا إله إلا الله نكو دق رندي ألك نتسيت كنم لا إله إلا الله لن لن يلي لا إله إلا الله تنبوكي ولا إله إلا الله رك نوي رينت نيت دان كوري تجمو كو نيت دان كوري تجلو لو فتال إتم تيري كو كو كادو غنياو غو يكتي تكو تي درو نيت تلين غي جورت wala nga xam benn yokk ba muy fukk xamuloo dara nga fen sos teg ko ci deru gor gu set wicc yàq nga dundam fu mu dem ñu di ko ko xoole kooku rey nga ko moo tax sëriñ Cheikh Tidiane si almaktum radiallahu anhu daana wax de balaa kenn mën a waat ne rayul nit bàyyi leen ba ñu teer yi ëllëg ci kanamu yàlla mbokk yi penc mi taq na de waaw penc mi taq na tilim na tache na xol yi wow na il faut que ñu fóot ko ba mu set la koy fóot nag mooy nammat baatu la ilaha illallah ñu jàngale ko ci école yi jàngale ko ci kër yi jàngale ko ci zawaaya yi xam lan lay wundu nan la ko sang bi dunde woon mag ñu baax ñi ñu am ci biir Sénégal ñu donn sallallahu alayhi wa sallam commencé ko ci imam abdul qadir kan cerno sulayman bal wàcc ba ci mam cheikh hajj omar al fouti ñëw ba ci mam al khadim mam hajj abdullah ñes ñëw ba ci mam cheikh hajj malik guru yàlla yu tedd yoy li ñu daj ci diine ba taxawal kalimatu la ilaha illa allah mbokk yi ndono lolu warul mujj ci suñu loxo ñu diko yàq ëpp na def nañu defar xol yi sallallahu alayhi wa sallam neena yaram wo gis aw suuxa ngi ci bu baxé yaram wépp bax bu yàqoo yaram bi yëpp yàq ñu ne ko mooy la mu ne mooy xol mbokk yi am na ci xol yoo xam ne yàqu na waaw am na xol yoo xam ne tirim na ngir rëy soxar iñaan bëgg daraja defe ne yaa ñëpp koo gis xeeb ko reetaan nit doyodal nit toroxal nit tey wax laa ilaha illa allah ci sa làmmiñ la ci sa xol fa kalimatu laa ilaha illa allah ida tarassaxat wa tawattadat fi qalbi al abd أصبح, ذلك العبد متسايرا مع معاني لا إله إلا الله دوتو كمنا جن لا إله إلا الله مولي رغت دوتو ريو دوتو يردكو دو جو دو رمباج دو لكلو مومو دو نياو نجوت دو بيس دو لمسل دو جو دو يق نيت بارينا كو دك سي دي جولي دي جانغ القران اجي مكه او يوم تبس بو nga téye sa làmmiñ tiim deru nit ñi jël sa paaka dagg lekk ba sa gémmiñ fees dell ak deret li nga jaamoon yàlla lépp màbb na surtout na Aïcha toog naag sallallahu alayhi wa sallam jékki-jékki tudd kenn ci ay wujjam muy saydatuna saydatuna Safiya saydatuna Safiya soxna yonent bi waaye taay ba guddul woon soxna Aïcha di ko ne ko sa soxla su ndaama loo koy doyee boo ko waxoon Abdou Mbaye fekk mu am ñaari soxna wala ñett fu mu aaye rek foofa neex fu mu aaye daf naan foofa neex waaye sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy jëmmal mandute kooku sañul jeng bi mu ko waxee mu ne ko yaa aishatu laqad qulti kalimatan law muzijat bi ma il bahri la masajatu sa kaddu gii nga wax jëme ko ci sa nawle te nekku fi ne safiya dafa ndaama sa gémmeñ gaa ngi fes dell ak deret boo ko sotti woon ci océan bi dala ko xonqal cur ndax baat bi nga wax mbokk yi li tumasee ci sama bopp ak képp ko ma ko sañ a wax kan moo ci mën a xëy suba ba ngoon te tuddloo sa nawle wax loo xam ne bu teewoon doo ko ko wax kon mbokk yi pour bañ a guddal ñu ngi koy yemale foofu ñu ngi ñaan mbokk yi ñu defaraat xol yi fa tabarakallahu ñu soppante nañu bëggante tariqa yi mbokk yi bu ñu tàqale مك ني با وما شان اهل الله حب رئاسه فحن فعن حب غير الله همتهم تعلو نيتو يالا يي مسوني بغ يالا سن شيخ الحاج مالك نينا بم ووري ني تاخاو سي بنين بونت بودول بونت يالا ديكو فغ من مالك داف مي تاردل لا في باي بونت يب تاخاو سي بونت يالا وقرعي فغ غومي فغ من مالك باب الغير اي بابا غير باب الله benen buntu budul buntu yàlla ya rab yow sama sank ya rab yow sama kilif ya rab yow sama borom ya rab yow ki may defal sama tarbiya sama ruh ba mu set wicc fóotal ma sama xol ba dootuma bañ nit yek naa ne lam yufit amul njari lidha ka sarafna nahwa babika bi motax ma bàyyi fi buntu yépp taxaw ci buntu yàlla xajuma ci genn ginaaw gudul ginaaw yàlla motax mu ne fa bayna yaday mawlaya mawlaaya ma ziltu waaqifan abdu bul فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي مقام الوقف بباب الله تبارك وتعالى مقام الخضوع والاستكانة والتذلل والخضوع لله رب العالمين كي لا تخو مك ني باخ نيت فوف سن مام شيخ الخديم رضي الله عنه ما نان ولا تعادوا بولن نونو مك من كان خا خمن رايتوم غيس فاهو گيمنيم يخرجو موي گيني baatu laa ilaha illa allah mag ñu baax ñëpp loolu la ñu wax kon ndono li benn la loolu moo fi indi daje tey bu sell bi suñu kilifa yu yu sell yu baax yi amuñu jot waaye ñëw ngir bégal njaboot fa tabarakallahu xam ne itam responsabilité la ku yàlla teg ci kanamu njaboot ñu lay wooye ab sëriñ wala ñu lay wooye xalif wala nga nekk imam wala nga nekk wayjur wala nga nekk sëriñ daara sàmm nga كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع عن أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها والخادم كذلك ñun ñëpp ay sàmm la ñu mbokk yi loolu moo tax ñoom amuñu sañ-sañu toog il faut que ñu jóg pour wax ak jaamu yàlla yi ñi ngi wax mat nañu ay kilifa ñun ñoo war a xool suñu bopp ndax mat nañ leen njaboot wala déet mbokk yi nañ defaraat jikko yi nañ yaru baatu laa ilaha illallah wallahi ko ko wax tàqamti ko ko dara dootu la saf lu dul yàlla waaw da ngay bëgg da ngay kontaan da ngay libre dara dootu la jatang lu dul yàlla dalay lay sa dund gi nekkul ci loxo x nekkul ci loxo y du ma sàmba du demba du njaga mi ngi ci loxol yàlla boo ñàkkee fayda nag ba leneen lu dul yàlla yilif la kotti kotti yolli yolli yaa ñàkk fayda mais laa ilaha illallah moom bu ñu ko yéwénaloon rek mbokk yi penc mi dafay jek ci walu transport ken dotul burle fa rouge abdou la ilaha illallah ku koy wax ta muy deug ci yow doto burle fa rouge dé déedéet yi yu rouge yi dootoo ko burle do burle stop do do doo dépassé itam foo wata dépasser do jaar ci sens interdit do xëccio priorité la ilaha illallah ku koy wax ta muy deug do bañ ken do soxare ken do iñane ken do gedd ken da ngay xamne ñëpp njabootu yàlla lañu do sànni mbalit isam ci met waaw anarchie bi am ci Sénégal fu neex way mu lal jaay fu neex way mu def marche medd yaa ngi tilim waaw fa tabarakallah la ilaha illa allah soko waxe te muy deug waxon nako ci gam gàmm mu tama sikiin dootoo tok nit tek layu tek ci ay pettaw nga nan ko xolal ma luy xew ëllëg ku toog ci kanamu ku teg layu muy def pettaaw nga naan ko xoolal ma liyu xew suba lan la waxoon naa ko danaa ko répété waat insha allahu tabaraka wa taala képp ku ko wax baatu laa ilaha illa allah bi nga dugge woon ci diine bu doon yére yére ya naaw na yaramu neen nga def laa ilaha illa allah abdu ku ko wax te muy dëgg boo lebee da ngay boo lebee da ngay fay de laa ilaha illallah ku ko wax te muy dëgg boo àbbee dangay delloo doo lekk alalu jirim doo jël soo suufu jàmbar soo moomul doo nangu jabaru jàmbur doo takk jigéen ju jàpp idda moo xam idday pase la wala muy idday wafaat ndax la ilaha illallah mo lay yar mo lay womat mo lay rëgët mo lay teunk bo bo joge nara def lu bon mu téye ray yu bon yi am ci bir sénégal lëmbe rew mi fan yi ba ku teddu do nelaw papa di ray dom dom di ray papa nit di ray soxnaam soxna di ray jeukeram mbeddi mi ken amut ku teddu do nelaw liko ko waral moo di laa ilaha illallah fay yam ci làmmiñ ji te dunduñu ko ci suñu bir xol ci lay teje inshallah laa ilaha illallah abdu bu doon dëgg ma wax ko muy dëgg ci man nga wax ko muy dëgg ci man keneen wax ko mën nañoo génn suñu kër te duñu tëj suñu porte mën ngaa dem dox yi sa soxla ba ñëw sa xel dafay dal ndax ñi nga bàyyi ñëpp ñi ngi wax laa ilaha illallah te kuy wax laa ilaha illallah amatoo droit ruur këru jàmbur amatoo droit ruur alalu jàmbur amatoo droit laal deretu nit dañ ko toj waaw dañ ko sàcc ak feneen kon mbokk yi nañ na faraat laa ilaha illallah sëriñ bi ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax ñu ngi yemale foofu kaddu yi di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla boole jéggal te yàlla nañ yàlla boole nangul hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu